jàngub bi yàlla bu ndakaaru alxemes ñaar fukkeelu fan ak ñeent ci weerum décembre bataxalu noël 2020 bindees nanu lile ci téereb yonent ba esayi xelum borom bi yàlla ngi ci man ndaxte borom bi tànn na ma bi mu ma diwee yónni na ma ndax ma jottali miskin yi yëgle bu neex bi ma defal ñi seen xol diis yëgal ñañu tëjoon seen mucc te yëgal it ñañu jàppoon jaam ne dinanu moomi seen bopp yëgle atum ngëneel mi borom bi di may ni suuf si di saxloo ay jiwoom ak ni tool di saxloo ay jiwoom noonu la borom bi di saxale ji njubte ak cant ci kanamu xeet yi yépp aji ngëm ci krista bi mbokki jullit waaye defal yàlla ak yéen gëstukatu solo su abadan na xelum borom bi ànd ak yéen te suqali i xalaat ak jëf yu méngoo ak coobare yàlla xel mu sell mi xelaloon taalibe u yonent ba esayi ba mu yeey ne atum ngëneel mi borom bi di maye ak i jiwi njub ak cant na xel moomule palax ci seen kaw yéen ñépp te baawaani ci kaw ñi yenu mettiti àdduna na xel moomule indi wër ci seen yaram dal ci seen xel jàmm ci seen xol ak bees ci seen ruu maa ngi xalaat jarak yi samay soppe màggat yi am barke te di nemmeeku ñi di dund ci weetaay ak ñàkk maa ngiy bàyyi xel ngala moom yi ci biir miskin yi ak ñi di werek cek ndax di rabat ci seen xel ne ëllëg mën na dikk fàtte wërsëg itam maa ngi xalaat bu baax ñépp ñi mbasum covid-19 toskareel ñi ci ñàkk seen xëy ak ñi seen loxo jotatul ginnaaw ba tax mënatuñu faj seeni aajo njoboot yu gën a aaju rawatina sutural na mu ware i seeni mbokk maa ngi leen di gëstuwaat yéen xale yi ma sopp-sopp dañu leen di atte ñàkkal coofel ak toppatoo gi ngeen aajowoo jur sànni pamti pamte jariñoo soppiwaay yàlla maanaam ab yalwaankat dëkkee tambaambaalu ci biir dëkk bi ñuy fas di faseet yéene bàyyi jëf yu ni mel boobule taxawaay du saggu mim réew li yees mooy jëf yu ni mel dañuy feeñal sunu farata su doyadi ci wàllum kaaraange maa ngi leen di bàyyi xel yenn xale yi lasar amaa doo leen rëcc yàqkat yi amaa ñu leen di teg taafar ak fitna mbasum coronavirus sabab na jamono ju metti sunu dund njaboot ak sunu dundu mboolem nawle yëg na ko bu baax a baax suñuy yëngu-yëngu ci koom-koom bi ci baax bi ak parlu gi ñu war a am ci ngëm gi soppiku na lu bari ci rafet njort jamono nattu ji daf ñuy may ñu jaanoo ak sunu néew doole waaye ci suñuy xaaju guddi ni giy feeñ ci suñuy moy suñuy sën géem suñuy néew doole xel mu sell mi daf ñuy wommat ci guddi gu ees ak a sell fa muy diggalee malaaka samaan ya ñu jottali yéene bu rafet a rafet bile tey jile ca dëkkum Dawid ab musalkat judul na leen di Christ borom bi ci lilee ngeen koy xàmmee ji dingeen fekk liir bu tooy bi ñu lëmas ak ay laytaay te tëral ko ci am mbalka liir bu tooy bi mu ngi tudd l'Emmanuel maanaam yàlla ak ñun dinañu xumbal ju doom ca Bethléem ci guddi gu sell gile l'Emmanuel bi na ànd ak yéen ñépp na dëkk ci ku nekk ak ci sunu biir nanu ko teral ci bërëb yi ñu dëkk nanu ko xëjal ci gox-goxaanu sunum réew ci suñuy njoboot ak ci suñuy mboolent nanu teewaayam gu ànd ak barke feesal ak baneex ak mbegte amal ñu jàmm xelal ñu cant xumbal coofelu yàlla gu amul àpp ci guddi nowel gu sell gile yàlla perye boppam ci sunu biir daldi dëkk si ak ñun ba ñu gisee coofeelu yàlla jegeñ si ba bokk ak nit mënuñoo ñàkk xumbal sunu mbégte ba muy ñëw ci àdduna si yéesu daa def boppam miskin pool mu sell mi di ñu àddu lile xam ngeen naka la sunu borom Yeesu Krista baaxe moom mi doon borom barke te nangu doon miskin ngir yéen ndax ngeen doon borom barke ci kaw li mu doon miskin yéesu neewal na boppam dafa suufeel boppam ndax jegeñ si ñu rawatina doon sunu mbokk tuutal na boppam ndax ekkati ñi tuuti ak ñi suufeelu itam ndax ñu bañ a ragalati sangoo na yaramu nit ndax yokk kile ak teewaayam bu am barke na teewaay boobule ràndal ñu lu bon ci xewte nowel atum 2020 mbasum covid màndargaal ci ab diir bu gàtt yàlla nañu yàlla may ñu di ko joobe ci peex di woy lewetaayam ak yërmandem te di siiwal coofel ak cant gi ñu am ci moom yàlla sopp na sopp nit ba mënu ko bàyyi mu sanku du tàyyi di ko gàttandu si lu jiitu tey ay yooni yoon yàlla wax na ak sunuy maam ya ca gémmiñu yonent ya ca ay jëmm yu cër-cëre te wuute waaye ci jamono yu mujj yile doom ji mu àtte ne dina donn lépp li am di doom ji mu bindee àddina yépp la waxe ak ñun joojule doom jàngal nañu ñu faral di jublu ci lu am solo naka la ko Pape François di ko fàttale li am solo dëgg moo di jaamu yàlla ak sopp sa morom li am solo dëgg moo di jaamu yàlla ak sopp sa morom samay soppe ci borom bi ànd ak sàmm ya doon fanaan ci toolu Betleyem ya nanu jaamu yàlla mi def boppam miskiin ba juddoo ci gett gu lëndëm nañu ko teral ci sunu xol ci suñu dund ak kër yi moo taxaw ci bunt bi te di fëgg bu ñu déggee baatam te ubbil ko dina duggsi te dina reer ak ñun bare nañu muur ñi yàlla oo ci dundam mi di l'Eucharistie mu sell sell bi ci yaakaaru berndewu abadaga suñu nangoo topp xel mu sell mi te bàyyi ko mu jàngal ñu dinañu àgg ca xewum jàmm mu dul jeex ma dundi te jëfi yeble coofel ci sunu moroom nañu nangu xel mu sell mi yee suñu cawarte su ko defee ñu mën a xeex ndool mi ak toroxte ji te soññ ci dundin ku gën ci ñépp nanu xel mu sell mi xiirtal ci di yokk solo sunu mën-mën ndax topp otewu yàlla te gën fii nekkal sunu morom na leeral suñuy xel ndax ñu mën a ràññee coobare gi yàlla te àggali ko ci di sentu lu baax nanu may am ajo ci ñi sonn te bokk ci suñu mboolem nawle ndax ñu mën di leen di feeñal yërmandewu borom bi yeesu dimbalante ak seddoo na yaatal lépp ba ñu soppante te tàppe xol yi ci jàmm ak mbégte samay xarit yi ma sopp-sopp xool leen ni mu baaxe te neex ñu ànd ñu ñépp dëkk ni ay doomi ndey mbégteem Noël yéen ñépp ànd ak Yeesu Krista mi doon taaw ci diggu doomi ndey yi ñu doon te sakankaar yàlla na leen l'Emmanuel bi feesal ak teewaayam kilifa gi monseigneur Benjamin Ndiaye njiitu jàngub yàlla fii ci Ndakaaru